man mënuma wax ni munul am ndax dama gisoon président Macky Sall juróomi at wala ñeenti at bokk yoo xam ne nit ñi dañ naan Macky Sall xeex sax mi ngi am ak xuloo ñu ne loolu la Macky Sall daa bëgg dem troisième mandat te amul fu mu ko mos a waxee su koo wax nit ñu topp ko ci sañafal ko mu ni heure su ma ci waree wax dinaa ci wax bi mu ci waree wax wax na ci. Mhm. man loolu laa yaakaar ni aussi Kajoor mooy ñëwaat ci euh, candidature président de la république ki muy ki muy tànn pour man. lu muy liggéey la mu nekk loo xamante ni moom la engagé nga xamante ni euh, wax ji ci moom lay terminer moom moo naan diw laa jiital loolu nag dama defe ni du ñàkk am da caa àggagul ci wax ko man loolu laa yaakaar. essayé da ndax bi ñu mujjee ba ñu mujj ci onze candidats après mu ngi leen di wax ne bu leen ma bu leen ma bu leen ma bu leen ma gën a rendre la la chose beaucoup plus difficile. difficile ouais. c'est parce que ils n'ont pas eu. lu consensus moo tax leen encore ci loxo Moustapha Niass pour ñu continuer concertation yi loolu du du du du ñàkk préparation mhm. suñ ko mën a waxee noonu mhm. au sein de de la coalition waa xam nga loolu ba tey Kajoor man li ma jàppale rek mooy préparation la ndax it euh, nit ki su fekkee da ngaa ànd ak moom euh, mu lay liggéeyal nga am lu leen lii am lu ma lii ay am lu leen lii keneen ak keneen soo demee ba nga xamante ni yaa ngi taxawal dara euh, pour nga def ko brusquement rëccu mën na ci am faaw nga ànd ci ak euh, concertation ñi ngi ko seqal ànd ci ak xalaat ndax it tànn kuy jiitam réew vraiment du ay caaxaan